voilà dellu rafetlu seen ànd ak programme Leral TV Leral FM Leral point net dellu si waat ci 12 minutes chrono fukki minutes ak ñaar ngir ñu daal di def spécifiquement focus ci benn point waxtaan ci lu jëm nag ci actualité bi ngir in ci ay leeral askan wi ñi nga xamante yéen nag ñuy faral di topp tey jii nag ñu desandi ci li nga xam moom moo jëm ci wàllum njàng bu kawe bi ak dara bu kawe bi nga xamante ne foofee ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar fas cee sekk waxtaan ak secrétaire adjoint Euh, bu euh, syndicat autonome de l'enseignement supérieur maanaam SAES e waxtaan ci li nga moom moo jëm ci li ni mel xam ngeen ñoom génne nañu ab bataaxal ne ñoom dañuy dem ca gerew altine bi ñu dëgmal euh, ngir ñoom duggaat ci li nga xam moo jëm ci xeex bi ngir ñu ibbi daarabukaay bi wala tamit jàng bi mën koo nekk ci dafay nekk ci lu ñoŋ ci réew bu Sénégal dalal ci nag Arfan Dianka Euh, wax naa ko sànq Diamanka moom mooy euh, directeur wala euh, secrétaire adjoint bu SAES ñu amat mbégte bu baax daal di lay dalal monsieur Diamanka Diamanka salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu monsieur Senghor. Mhm. d'abord lay sant ci invitation bi ñu invité di gërëm sa auditeur ak sa téléspectateur ak téléspectatrice. Mhm. donc di nuyu suñu camarades yi nekk ci campus yi yëpp. Euh, di nuyu suñu secrétaire général camarade David Célestin fay mi nga xam ne moom laa fi teewal parce que moo ma ne naa ñëw teewal ko fii parce que temps yi dafa am benn dëj bu nekk ci loolu donc moo tax moo wax ma ne mën naa ñëw teewal ko fii donc pour mun a jàkkaarloo ak yow ci émission bi. macha allah euh, vous êtes vous faites partie bien sûr yow yaay d'ailleurs secrétaire général adjoint bu SAES alors ñu gis ne génne ngeen a bataax récemment fas yéene décréter une grève euh, à partir du 6 et 7 justement semaine bii di ñëw. li ngeen exiger mooy la reprise immédiate de l'université Cheikh Anta Diop bu Dakar est-ce que vous pensez que cela est possible merci beaucoup Senghor oui c'est très possible et il faut que ñu def ko parce que fu mu nekk nii euh, université euh, université yëpp ci ci Sénégal ni ñu jànkantoon en crise bu metti maanaam événement yi daloon ci université yi au mois de juin hmm. bi événement bi amee ci université yi donc euh, gouvernement bi ak autorité université yi dañ ñëw tëj université yi yi daje ñu tëj université yi mais bu ñu ko tëjee pare ñun SAES e dañoo génne bataaxal nee leen comme tëj ngeen université na ngeen jublu nag ci defar lépp lu ñu war a defar pour que reprise bi au mois de de d' octobre reprise bi mun a ñooñ donc nit ñi ñëw étudiants yi ñëw ñu am reprise bu baax parce que instance université yi mooy les conseils académiques yëpp dañu réunir yoon am ay programme de reprise donc dañoo dañoo toog toog ba mu yàgg gisuñu dara ci université yi ñu génnewaat benn bataaxal def conférence de presse sax di artu autorités yi pour ñu jóg ci université yi bala ma ñëw foofu sax ma bëggoon métitlu métitu métit bu rëy lu ñu teg ci université parce que saccage université brûler ay amphithéâtre hmm. lool ay bandi ñoo koy def te loolu ñu koy métitlu ba métti fu mu yem hmm. loolu vraiment c'est quelque chose d'horrible donc ñu ñaan loolu bu mu amati ci université yi waaye nag tëj université tamit loolu yenewul maanaam université kenn du ko tëj mais bu buñ ko téjee ba pare nag SAES e dafa jóg nee leen da ngeen di war jóg nag def lu ñu ngeen di war li ngeen war a def sécuriser université yi sécuriser suñu camarades yi ak seen biens yi pour reprise bi en octobre comme conseil académique lu ñuy waxee reprise bi mën a am waaye boobu ba léegi defum dara ñi xaar ba octobre nag octobre ñu war a reprendre ñu ñëw ne oui duñu mën a reprendre parce que euh, euh, œuvre sociale yi pare mais loolu loolu loolu œuvre sociale ñi xaar ba octobre. kon da nga jàpp ne loolu du raison valable bu war a. mënul nekk raison mënul nekk raison parce que œuvre sociale yi muy kut ak kurus yi. Hmm. lu fa xew sax dafa doy waar. parce que mënoo toog boobu cinq mois. juin ba léegi defoo dara hmm. nga toog ba léegi nga ne way feeñu la. mu muy muy muy Sine Saalum muy Bawee muy Thiès feeñu la donc yow mënoo ubbi te nga toog cinq mois wax waxoo lool. kii yóbboo ko fenn ndax ba octobre nit ñi war a ubbi université nga ne yow feeñu la loolu est-ce que loolu raison bu valable te lu gën a doy boo demee Thiès université bu Thiès. mais université bu Iba Der Thiam bu Iba Der bu Thiès boo demee foofu euh, lu ñuy wax EPT école supérieure polytechnique. Hmm. mais ñooñu ñu ngi jàng les grandes écoles les grands ñu gouvernement teg foofu foofu ci campus boobu mais ñoom ñu ngi jàng ci benn repreneur boobu. moo géré EPT bi. mais est-ce que situation bi xew Thiès ak bi xew Dakar bokk na. mais dëkk xaaral rek lu pour pour pour lu tax Thiès mënul ubbi lu tax Bambey mënul ubbi lu tax euh, Sine Saalum mënul ubbi mais c'est une parce que ku géré ñetti yëpp pour les grandes écoles ubbi pour EPT te ubbiwul pour université. kon jàpp na région politique. région politique la moo tax na ñu war a jóg SAES e moo tax ñu war a jóg nag pour. exiger la réouverture parce que amuñu raison te dañoo dañoo dañoo bëgg sax les les œuvres sociales il faut que réforme am il faut que ñu dépolitiser les coûts les courses le coût les courses il faut que ñu dépolitiser ko. Hmm. ñu am ay responsables yi nga am ci université lañ jógee ay managers pour mun a gérer et il faut que réforme am pour gestion boobu ñu indi ko ci université. comme ñu fal ñi fa nekk comme ñuy fale. ay suñu responsable institution maanaam responsable faculté yi UFR yi ak école yi. comme ni ñu leen di falee élection ñi fal ñi fa ñi war a gérer coude ak crouse. mais réforme yi ngay wax noonu euh, ki nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci étudiants yi bokk ci collectif des amicales de l'université l'université Cheikh Anta Dakar démb génn nañu bataaxal li ñu bëgg mooy ñu xalaat aussi càmbar ci réforme yi ngay wax noonu pour ñu dugal enseignement hybride ci li nga xamante moom mooy. peut-être Université Cheikh Anta Diop bu wala l'enseignement supérieur au Sénégal est-ce que vous êtes prêt en tant qu'enseignant du supérieur pour ngeen adopter justement euh, ce style de l'enseignement hybride oui xam nga enseignement hybride mooy enseignement présentiel nga lëkkaloo ko ak enseignement en ligne hmm. pour enseignement en ligne kenn mënu koo bañ parce que tey fu ñu nekk ci adduna bi enseignement en ligne kenn mënu koo bañ lu war a am la waante dafa enseignement en ligne da nga koy préparer ñun suñu université les universités traditionnelles à part université numérique Cheikh Hamidou Kane hmm. boobu rek la ñuy ñoom lañ lañ ñuy defaral pour mu def enseignement en ligne yeneen ñi yëpp dañ koo tabax ci modèle présentiel. mais enseignement en ligne yi li ngeen ci li ngeen ci doon def lan ngeen mën a def lan ngeen ñu mën a wax comme euh, évaluation. waaw may may ma tuuti ma ma ma kii ci la. Hmm. enseignement enseignement en présentiel. mënoo hmm. jóg parce que crise dafa am rek nga ne woon na ñëpp basculer dem enseignement en ligne loolu mënul nekk dañ koy préparer. dañ koy préparer am jumtukaay former nit ñi pour mun a def enseignement en ligne parce que boo université numérique chez américaine maa ngi gërëm suñu ak camarades yi fa nekk nga ñu ngi def liggéey bu bu bu bu bu bu ña liggéey bi nga xam ne liggéey bu bu grand foofu mais ñu ngi jànkoonte ak problème parce que seen étudiants yi sax en 2002 seen promotion 2002 mais juillet 2023 la ñu am ordinateur donc de loolu day indi jafe-jafe ci seen calendrier yi ñëw sax. Hmm. malgré effort yi ñuy def pour. enseignement boobu jëm ci kaw donc loolu boo ko gisee ci université boobu bi nga xam ne ñoom dañu leen di defar pour def enseignement li mënoo ñëw nga ne yow léegi nii nañ basculer enseignement en ligne comme ça loolu mënul nekk. mais enseignement en ligne bi trois mois yi nga boo boo ko doon def. mais loolu yëpp loolu yëpp on n'a pas réfléchi là-dessus. Hmm. def ñu réflexion bi nga xam ne mën nañ def évaluation bu baax enseignement li ñun ñun ñu fay jàngale nu ñu defee évaluation en ligne. xa jëfuñu jëfuñu kii kii boobu euh, formation boobu. Hmm. ah donc nuñ koy defee loolu yëpp dañ ko war dañu war a toog xool ko te mu am ay période bi nga xam ne nit ñi dinañ dinañ xool pour mun ko def sérieusement bala baaxalee enseignement yi te ma yokk ci leen hmm. xam nga enseignement xam nga enseignement bi fi mu nekk nii euh, enseignement présentiel fu mu nekk nii xam nga lu tax mu baax. Hmm. parce que fi mu nekk nii suñu boo yow boo feebaroon tey nga dem hôpital. ñu fay fekk ñoo fay fekk. mais ñooñu boo leen ay enseignement en ligne def yow di nga nangu ki nga xam ne enseignement en deful pratique di la xool pour ban jàngoor nga am est-ce que yow di nga ko nangu. Hmm. donc loolu yëngu maa la suñu étudiants yi dañu war a ñëw dañu war a ubbi université bi étudiants yi ñëw ñu jàngal leen def pratique. pour ñu mun a former comme ñun nuñ formation bu dalal nañu fii le directeur du COUD euh, Maguette Sène nee na mënuñu ñëw tant décembre jotul est-ce que ça aussi beneen combat parce que yéen da di bëgg ñu ibbi immédiatement est-ce que loolu tamit mën na nekk loolu loolu ça nous engage hmm. déclaration kooku ça nous engage mais est-ce que les assises assises yi est-ce que demoon ngeen teewoon ngeen waxtaan ngeen non non xaaral bu bu COUD bi waaw bu COUD bi il faut que ñu ubbi université loo moom lu muy def. waaw ça nous engage pas ce qui nous engage c' est que il faut qu'ils ouvrent l'université il faut que COUD mën na ubbi parce que gis nañ lu fa nekk. Hmm. lu fa kii mooy direction bi rek la ñu nag. ak yenn mais pavillon yi ngi fa. restaurant yi ngi fa donc nañ ko ubbi bu ñu ko ubbee pare ñu xool lu ñuy def tant bu ñu ubbee université mën nañ waxtaan ñu xool lu ñuy def sécurité ñu xool lu ñu def yeneen yëpp. Hmm. mais il faut que ñu ubbi ko c' et c' est urgent. et ci moom euh, wax dëgg yàlla. demoon ngeen. non SAES teewoon nañu en fait SAES n'est pas n'a pas été invité. en sais pas. mais amoon na ay représentants di SAES au niveau du conseil académique nga xam ne teew nañ fa. ak suñu coordinatrice campus de Dakar mi nga xam ne teew na foofu. bien sûr ñooñu. Hmm. am na lu ñu wax autorité yi. Hmm. pour ñu ubbi université mais assises yooyu sax boo gisee titre bi c'est pour la reprise. mais reprise reprise bi. waxuñ ci dara ci reprise. Hmm. ci leneen lañu nekk de wax. donc loolu la loolu moom il faut que ñu xam ne université du du université du caaxaan. waaw xale yi yàgg nañu ci biti. Hmm. te loolu mootuñ ko nanu. alors le mot de la waaw fu mu nekk nii kay secrétaire général camarade David Sersen dafa convoquer toutes les sections le euh, samedi 11. Hmm. Thiès la ñuy daje. dañuy def marche d'abord au niveau des campus le 6. quand le 6 dañuy def ay marche au niveau des campus le lundi 6 léegi nag. si les conseils académiques se réunissent et qu'ils n'ouvrent pas l'université le avoir dañuy am benn conseil de conférence nationale de sections te boob la ñu gën a lal plan bi nga xam ne incha allahu rabbi dinañ ubbi université ci nii wala ci la nañu bàyyi politiser université yi nañu bàyyi politiser kudd yi ak kurus yi nañu ubbi université yi xale yi ñëw jàng si lool loolu moo loolu mooy yoon une tëj université du yoon ci Sénégal hmm. tëj université du yoon fenn nañ ko ubbi ni xale yi ñëw ñu jàngal leen di jàng bi mën a mën a ñëw loolu la ñu est-ce que mën nañu xaar ngeen paralyser l'enseignement et l'éducation du Sénégal comme ni ko étudiants defee non non moom baaxul bien sûr paralyser ko hmm. te ñoo ngi wax gouvernement bi te mooy sama mot de fin gouvernement bi euh, dañoo am protocole d'accord dañoo toog waxtaan ak ñoom hmm. ci gentlement ñi am ñi euh, déggoo ci ay poñ poñ yooyu ñu wute leen ay app mais fu mu nekk nii app yooyu yëpp passé na am na poñ ñu bëri yi nga xam ne defuñ ci daan benn bi mooy suñu décret décret bi pour les veuves et les veuves boobu ñu xaar defar nañ ko ba pare ministre bi ñu ngi koy ñaan na jël suñu décret yóbbu conseil bi ñu signé ko loolu lañ xaar mais infrastructure infrastructure yow mënu nga xalaat depuis 2015. pour jeexal waaw ñu commencé. pour jeexal waaw ay laboratoire. waaw hmm. te am na ay pare la université seen liggéey de huit heures ba parfois vingt deux heures. ñu ngi ci te ñu formé ay docteurs ñoom ñu ngi foofu. mën na jël mën nañ la plan président dafa la devant plan de recrutement ba léegi recrutement def ko. donc gouvernement ñu ngi koy àtt pour moom moo nekkoon euh, ki nga xam ne moom la ñu dalal léegi tey jëlee ci 12 minutes chrono ëllëg lay doon incha ci beneen numéro ak beneen gan.